bismillahi irrahmani irrahim وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين بوكو جروب بانيل les enseignes de Daroukhan képp ko ko ci pouraay analyse brisard 1 analyse brisard 2 Eh, ñu ngi leen di nuyu Baye ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam ci nu mu gën a rafetee ci nu mu gën a tedde eh, di jël nuyu yooyu ak ziar yooyu yëpp di ko teg ci sunu eh, loxo ay kilifa di ci jiital Serigne Silla ak Ibrahim Ibn Hadj Ibrahima Diaw ak sunu mag sunu xarit El Hadj Ndiass di coordonnateur. ak sunu tante di sunu soppe eh, muy eh, ajaratu Fatou Gueye eh, ak mboolem notabilité yi nekk ci groupe bi yëpp te bu ma limee seen ki juum ñu leen di nuyu bu baax jël ko muy suñu wasaare ko ci groupe bi yëpp fàttewuñu kenn di nuyu aussi sunu nijaay di ko beral loxo ci waxtaan bi mu def ci muy sunu nijaay Mor ma Major Fall Mor Dior Fall vraiment ci xam-xam bu rafet bi générosité bi euh, altruisme bi vraiment lu gën a baax ci nu mu gën a rafete mu di ko jotal di ko euh, également ki nga xam ne c'est l'infatigable animateur muy euh, al imam Saleh Sarr ci rafetaayu taxawaayam ak euh, ni muy dundalee groupe bi teg ko ci xam-xam ci ay teggin am solo loolu dafa am solo trop trop trop trop trop di ñaanal ñi nga xam ne bokk nañu ci groupe bi jóge fi wala ki fi bokk jóge fu muy sunu mbokk sunu xarit El Hadj Abdoulaye Ndiaye waaye également sunu goro muy Seydi di goro sunu nijaay euh, sëñ si la ak ñi ci koñ ba ñëpp ñi ci génn àdduna muy daaru xan géejawaay yenn yàlla yokk leen leer fi ñu nekk dëkk leen ak na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barzaqul maktum yàlla fexe mbas mi nga xam ne moom mooy lëmbe adduna bi yàlla musal ci waa Sénégal yëpp musal ci euh, mboole ñi nga xamante ne ni ñëpp ñoo nekk ci groupe bi ak seeni mbokk seeni xarit seeni am di jàmm ba Sénégal daj adduna bi daj incha allah yi am ndégte loolu del siwaat ak yéen ngeen ne vie dafa metti diggante góor ak jigéen parce que koo xam ne yéen a dëkk euh, seeni habitude léeg-léeg dafa wute woon mujj bi yàlla boole leen léeg-léeg nga nekk en bonne humeur euh, doo dikkale euh, tey sa xol neex suba sa xol naqari moom it léeg-léeg xolam neex suba xolam naqari léeg mu am ay manquement ci moom waaye aussi yow ku góor ki mu am manquement ci yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci loolu mooy maanaam couple boo xam ne dañuy dimbalante waaye aussi ku góor ki day dimbali ku jigéen ki day dimbali soxnaam jëkkëram ci liggéeyam mu koy yombal liggéeyam waaye également ci diineem waaye également bu dee jëkkër ji parce que la plupart ñoo gën a mën a tooñ góor ñi malgré que bu dee jigéen ñi jigéen ñoom ñoom seen jëmm bopp mën nañ wax ne sax ñoom noonu la leen yàlla bindee waaw noonu leen yàlla bindee ñun ñooy góor yi ñoo war a maanaam am am euh, euh, dépassement parce que yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jigéen ñaari mbuus la yor bu baax bi ak bu bon nee na bu baax bi amul baaxon maanaam mbuus la boo xam ne loo ci def rek ci lu baax da yureeku daanu waaye bi def bu bon bi yow ku góor ki bàyyi xel nee na dafa am baaxon maanaam loo ci def ci lu bon rek moom daf koy takk bu mu dëgër bés bu ngeen xuloo mu nee la defaloo ma dara ay e yow mi nii léeg sax mu dem ba ci wax la wax yoo xam ne dafay déplacé boo góor góorgóorlu rek nga def musiba moo tax ku góor ki euh, euh, wala ku jigéen ki ku mu mën a jóge rek ci couple ci wax yu mel noonu wala comportement yu mel noonu wala attitude yu mel noonu daf ko war a moytu mu bàyyi xel ci waxu yeneen yàlla muhammad bii nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom la wax moo tax moo tax beneen ani nabil akram muhammadul mustafa sallallahu alayhi wa sallam inna man inna min xayri nisaaikumul walut ñi gën ci seen jigéen ñi mooy ñi am doom maanaam dañuy maanaam am doom mooy ñu fertile al wadud waaye ñoo xam ne dañuy duus dañuy ànd ak douceur dañuy ànd ngi dégg as satiratu mooy ñoo xam dañuy am sutura dañu am sutura al afifa al afifatu mooy ñoo xamante ne ni mooy dañuy sas maanaam dañuy sangew al azizatu mooy ñoo xam ne dañu am seen prestige bopp dañu am nga seen ngëmu bopp dañu yëg seen bopp dañu am orgueil boo xam ne bu bien placé fii ahliha ci fameem azalilatu ma a baaliha baaliha jigéen yoo xam ne dañuy fonk seeni borom kër maanaam dañ leen di dañuy wàcce seeni mbagg ci seen boroomi kër mu ne jigéen ñi ñoom ñoo gën ci ñi nga xamante ñoo ñoom ñooy jigéen ñi moom it ba tey yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil mu ne afdalu nisaai ummati asbahuhunna wajhan wa mu ne mooy ki nga xamante ne ni jigéen ñi gën ci sama sama xeet mooy ñi nga xamante ne ni seen foo leen seen kanam ñu nekk ay kanam des visages radieux visages yu radieux yoo xamante ne ni da ngay gis ñoom kersa da ngay gis ñoom mbaax da ngay gis ci ñoom wàcce seen seen seen seen bopp waaqalluhunna mahran waaye aussi càng yi leen di jox mooy ñi gën a néew càng parce que càng nu mu gën a néew noonu la maanaam barke sëy di gën a yokkoo parce que rek boo xoolee fii ci Sénégal ak feneen bari na sëy yi nga xam ne yëpp à million sëy yooyu dafay bari problème ci ciy judd moom mooy gaaw a tas ak yeneen yooyu gis nañ lu mel noonu moo tax ci benn xadis comme ni ñu ko xamee tey sunu waxtaanu tey bi euh, mi ngi aju ci li ñu tudde al aadabul xayaat al xayaatul azawjiya euh, maanaam li ñu tudde teggini ni nga xam ne ñaari way dencante yi noonu lañu war a nekke nga xam ne dafay ñoŋal seen diggante mooy les principes et de la vie conjugale mu nekk loo xam ne lu ama am solo nekk thème sujet boo xam ne dafa am solo parce que xam ngeen ne euh, nit nit la waaye dafa nekk ku euh, agraire koo xamante ne ni Euh, dafa sociable ci société rek la mën a dund ba tax na ci noonu la formé société société bi euh, famille famille nekk société société bi ci jëmu boppam conscience nation wala ay nation dem ba nekk ay peuple donc mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo donc euh, nga xamante ni individu bi société bi ci famille la reposé wu bu famille yi baaxee rek lépp baax bu bonee lépp bon donc yooyu nag principe yooyu ak yooyu dem na ba ci trente huit trente neuf yooyu ñu bëgg ci waxtaane ci première partie bi tey nga xam ne dina gën a mën a yee wala ñu gënoon a xam gën a xam parce que suñu diine dañ ko war a xam xam suñu histoire xam suñu littérature xam ne diine la boo xam ne dafa daj fépp matal fépp muy bu globalisante bu totalisante dundu doomu aadama mode de vie la ko def donc te loolu mu nekk loo xam ne lu am solo te kenn mënul wax diine waxoo famille waxoo li nga xamante ne moom mooy société parce que loolu dafa am solo parce que xam ngeen ni ci sociologie dañ la naan dafa am famille am clan am euh, euh, ethnie am race Euh, tu vois am peuple am masse am peuple am population donc yooyu yëpp mu nekk yoo xam ne ki société dafa am te ci biir loolu nag ñooy dema dema dem ba nekk ay nation entre fii Bawol fii Fuladu fii Kajoor fee Njàmbur fii Saalum waaye mbokkante yi mbokkante yi euh, ci sant yi ci ci deret ci raas ba mu nekk li nga xamante ne ni moom mooy société donc loolu fondement bi dafay nekk loo xam ne dafay am importance trop ci l'islam euh, ñëw na ci imaamul Hasan xam ngeen ko doomu Fatimatu Zahra euh, ku ñëw ci moom di ko yastachiru yastachiruhu fi tazwiji ibnatihi mu di ko laaj euh, xalaatam ci maanaam doomam bu jigéen bu ma bëgg a joxe qaala moom imam Hasan tontu ko zawwijha man min rajulin taqiyin fa in ahabbaha akramaha booy may sa doom may ko góor koo xam ne dafa ragal yàlla góor gu baax góor gu sangewu ndaxte bu bëggee sa doom bu jigéen dina ko teral wa in abxadaha lam yuzli lam yuzlimaha bu ko bañee nag du ko tooñ parce que déjà am na benn caractère ci moom mooy ragal na yàlla mooy ne du ko du du du dépassé moom loo xamante ne ni neexul yàlla neexul yonent bi moo tax képp koo xamante ne ni da nga bëgg takk ci jeunes yi wala même ba ci kudul jën am nga benn wala ñaar wala ñett nga bëgg a takk booy takk farataal nañu toujours nga julli ñaari rakka yoo xamante ne ni day ci sant sa boroom julli ci fatiha ak saar boo man nga ñaan yàlla yàlla yombalal la li nga xamante ne ni moom mooy sëy boobu kooku nag am na ñaan nga xam naa ne dinañ ci ñëw yi incha allah baax a baax euh, ci détail donc loolu mu nekk loo xam ne lu am solo moo tax euh, boo xoolee ci euh, trente huit wala trente neuf yi ma leen wax yëpp ci règle ak ci principe neuvième bi ci lañ nekk ni mooy adamu ziwaaj min al marati al mutabarrija sayiatu diin mu ne islam aussi euh, rafetluwul ñu tak soxna soo xam ne dafay maanaam soxna soo xam ne du toog tànk bi dafa ratax waaw du toog euh, fu mu fu ne ma nga fa ba pare amul diine ba pare nekk koo xam ne jikko bu bon kooku lislaam euh, booy kuy ut soxna waxu la nga dem ci kooku walaw kaanat jamila xaniya même bu doon dafa am nekk ku rafet nekk ku taaru nekk ku am alal li annaka turidu min aziwaaji al walad walaza parce que li la yóbbu ci pour nga marié moom mooy nga am ci doom waaye aussi nga am ci bànneex wa haadi la tamlikuha te kii ku mel jigéen bu mel noonu amul boo moytul doo ci am doom bi nga bëgg woote aussi doo ci am bànneex bi nga bëgg donc ndaxte la tamlikuha tarbiyatuha lil waladi ndaxte bu ko boo joxee boo ci amee doom nga jox ko doom bi mu yar ko dañ koy daf koy def doom boo xamante ne ni doom bu bon lay doon parce que loolu lay nàmp waaye taxunu ko te bu doom jigéen bu jigéen jigéen bu bon jigéen boo xam ne jikkoom rafetul du toog mu ne kooku daf lay war yow mi nga xamante ne yaay ku jigéen ki yaay ku góor ki gis nga lii aussi même ci ci ci ci ci jigéen aussi noonu la valable booy takk booy yoyit ku jigéen ki booy ut euh, borom kër utal borom kër boo xam ne bu responsable bu sérieux bu am jikko bu baax boo xamante ne ni même bu fekkente ne dafa bari alal euh, nekk ku rafet ku taaru ku am tur te nekkul ji amul jikko bu rafet lu dul mu ngi génn kooku aussi boo ci amee doom boo moytuwul sa doom dana am problème parce que moom it daf lay wor yow ku jigéen ki te gis nañ ko fi ñoo xam ne dañuy takk waaye fu ne ña nga fay dugg di parax paraxi donc loolu mu nekk lu am solo ni mu valable ci ku góor noonu la valable ci ki nga xam ne mooy ki jigéen yàlla euh, ñaan bi mu ne yow yàlla nga xamante ne ni képp koo xam ne njàqare ak tiitaange yaa koy dindi yaa yërmaande àdduna ak alaxira te it ku fa yërmande am ci yow la jóge nanga nga yërëm sama soxna si di diw di doomu diw euh, yërmande goo xamante ne danañ ko musal yërmande koo xamante ne ni dénko ko dañ ko bu koy dal ci mboolem ñi nga xamante ne ñooy sa fon nga génne ko ci njàqare mi te nga jàppale ko lépp loo xamante ne ni moom mooy angoisse yi mu am mooy maanaam eh, ci ci ëmb bu ëmb nga wala ëmbagul nga yombalal li nga xamante ne bu ëmb ñëwee nga yombalal ko ko te nga fajal ko aajam ci dëgg fekk kenn du ko tooñ ak yooyu gis nga ko loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am ama am solo donc xam naa ne def nañu quarante minutes donc fii lañuy ñuy yem ci kàttanu sunu borom tey bu ko defee mu nekk première partie parce que yi dafa am solo trop te lu fondamental du tabu loo xamante ne ni euh, kenn waru ko jàngale d'ailleurs lii euh, moom moo indi problème tey dans les sociétés musulmanes gaañi aw si pour yàq ko muy la sexe alors que ñun dañu war a xam ne ñoo ñun ñoo leen jàngal sax yu baree baree bare bari te diine amul kersa waaye dañuy wodd rek wax yi parce que kenn ku ci nekk loolu ñuy wax mi ngi ci yow te xam nga ko duñ lay jàngal te gëmm gëmmal kenn du ko wax gumba donc loolu rek la ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax di leen sant te di leen gërëm di jégalu euh, di leen ñaanal di sàkku ci leen ñaar suñu way jur yi yàlla jàppale ñu yokkuñu sutura may ñu war ak warle bi xaq muhammadin wa ali muhammad sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad mu am beneen xadis boo xamante ne ni imaamu sadiq alayhi salaam daf ko jël ci baayam imaam muhammadu baaxe mu jël ko ci ay baayam ak imaamam mu àgg ba ci seen maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa ci xadis mu ne إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك fa in tazawajaha li diiniha razaqahu llahu azza wa maaluha wa mu ne bu fekkente ne ni góor dafa dem di takk soxna ndax alal bi soxna soosu am wala taaram yàlla du ko ci wërsëgal li mu bëgg waaye bu fekkente ne ni daf ko takk ndax diineem yàlla dina ko wërsëgal alal boobu mu nekk lu barkeel ak ci taar boobu aussi saa su ko gisee rek mu nekk lu ko neex donc gis xam nga fii dafa bëgg a wax ne euh, liñ naan tunkaful mar'a li arbain mu ne liñ naan dañuy takk soxna ci ñeent mooy li jamaaliha taaram li nasabiha ngir maanaam yax bi mu jege aw li euh, euh, diiniha wala diineem wala ci li nga xamante ne ni moom mooy donc loolu muy won ne ndekete yooyu yëpp muy taar muy diine muy aral mu ne mu ne muy nasab li nga xamante ne ni moom mooy fi mu jógee muy maanaam askanam ñeent yooyu mu ne benn bu ci nekk dinañ ci takk soxna waaye bi gën mooy nga takk ko ndax diine donc ce qui que foofu ñu bari dañ bëgg a dàq ñeent waaye ñeent yëpp mën na ànd mën nga am jigéen bu rafet jigéen bu am alal jigéen bu yokk bokk ci yax bu rëy comme niñ koy waxee waaye aussi bu am diine kooku mooy li préférable ci ñëpp boobu la ñu soxla waaye yonent bi wax ne boo mënul am nag na nga jël bi nga xamante ne ni moom mooy bi am diine bu ko defee boo ko amee sa lépp dafay ñoom moo tax mu am benn euh, euh, euh, hadis encore boo xam ne imaamu Baaqir moo ko jële ci maamum yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu ne man xataba ilaykum faraditum diinahu wa amaanatahu kaa'inan man kaana fa zawwijuhu ilaa tafaaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasaadun kabir mu ne képp koo xamante ne ne képp koo xam ne kii yéen dafa bëgg soxna soxna boobu dem ngeen ngeen bëgg diineem gis ngeen diineem gis ngeen ne ku am digne de confiance la ku mu manti doon mu ne na ngeen ko takkuloo na ngeen ko takk bu ngeen ko takkul rek fitna mën na juddu te bu fitna juddoo yàqute bari ci kaw suuf donc mu nekk loo xam ne lu am solo parce que euh, euh, jigéen am na ci benn xadis boo xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu mu koy wax ne seen jeune fille yi dañoo mel ni comme ay maanaam euh, simaar mooy maanaam ay fruit bu ñu ñoree rek dafay daanu te bu fekkente ne ni ñor na ñi ci war defu leen ko utal leen leen ñu ñuy sëyal loolu mën na indi ay problème parce que xam ngeen ne il y a des besoins euh, physiologiques euh, biologiques ci góor gu nekk ci jigéen bu nekk mooy waral ngay gis jigéen di gis mbaax góor di maanaam ci di génne li muy génne yooyu yëpp dafay wane signe la boo xamante ne wane li nga xam ne mooy buluux mooy maam mat li majeur donc loolu bu amee rek sur le plan euh, physiologique ak biologique da gis ne E, e, e, jigéen bi wala ku góor ki am na lu muy aajowoo parce que day gént bu dee ko xale bi day gént ku góor ki ku jigéen ki aussi di gis mbaax donc mu nekk loo xam ne lu am am solo pour ñu ci bàyyi xel bu njëkk ba sax am na ci mag ñi ay douze ans treize ans lañ doon sëye juste rek fekk génn nañu ci âge de euh, ci enfance loolu yëpp pour bañ rek société bi ne jaxasoo mais léegi comme ñun ay canon yi jël yëpp kanon de euh, maanaam suñu vie léegi dañ ko calqué sur le modèle occidental ñooñu la wax naan ay dix huit ans ki ay treize ans ki douze ans et pourtant sur le plan physiologique ñëpp xam nañ ne xale yu neuf ans yu pays scandinave yi dañoo wuteeg xale yu neuf ans yu Afrique wala ci pays parce que dañoo wute seen màggaay seen croissance anatomique dafa wute selon les continent ak xeet yi euh, bëgg nañu maanaam dañoo sip ci ki nga xam ne moom mooy ku jigéen ki mooy euh, marié bi ku jigéen ki ci bu première semaine am parce que lii ay règle yoo xamante ne ñu bari xamuñu ko mooy muy lekk maanaam naan soow soow boo xam ne lee kaye la waaw xel yi ay genre fruit la ak euh, kasbara yooyu yëpp ki ay genre fruit la yoo xam ne amul yëpp moyen oriental yoo xam ne foofu la am waaye tufaax al ah, al alxaamit moom mooy euh, kii euh, pomme pomme bu bu bu bu verte bu weex bi kooku dañ koy pañ parce que bu fekkente ne ni xàll boobu la bu fekkente ne lekk na ko ci première kii bi loolu mun na bu du setal li nga bu fekkente ne ni dafa gis mbaax du set wicc comme beneen bi aussi bu fekkente ne ni euh, daf ko lekk mooy kasbara dafay nekk loo xamante ne ni dafay téye biir bi ba doom du mën a conception bi du mën a am bu dee nag lekk pom la moo na loolu dafay yàq boo jigéen boobu nga xamante ne ni dafa sëy première semaine bi mu jaxasoo ak borom ak soxna ak borom këram warul lekk loolu parce que pom boobu bu ko lekkee dafay dog li nga xam ne moom mooy réglam te bu boobaa dafay mujj sax nekk xeebar pour moom te day tax doom ji du mën dañ du concevoir donc bu dee ci Sénégal dañ naan soow ak li nga xamante ne ni moom mooy pom tere nañu jigéen boo xamante ne ni mi ngi doog a am euh, sëy ak borom këram première semaine bi mu moytu euh, jëfandikoo yooyu moo tax euh, euh, ci beneen xadis boo xamante ne ni imaamu Saadiq ba tey mu ngi ko jëlee ci bàyyi mu jële ko ci maamam yi alayhimu salaam ngi doon wax ñenn ci li nga xam ne mooy saabaami mu naan leen isa adxalta alayka bu fekkente dem nga nga bëgg a sëy ak ki nga xam ne mooy sa soxna na nga jàpp ci jubbu bi mooy ci première bu ngeen di daje nga jàpp ci bopp bi nga jubloog moom penku après nga wax allahuma bi amaanatika axastuha wa bi kalimatika istahlaltu farjaha fa in qadayta li minha waladan fajalhu mubarakan sawiyan wala tajal li cheytaani fi shirkan wala nasiba yow borom bi man kat ci sa maanaam protection laa jër jàppe laay waxee kàddu yi waaw di di di di di di daganal li nga xam ne mooy payu sama soxna si boo ci dogalee doom na nekk doom boo xam ne doom bu barkeel doom bu jub doom boo xam ne seytaane du ci am cër donc gis ngeen ñu bari sax fii dañuy sëy ak seen soxna waaye xamuñu sax ndax dañuy ban ñaan lañu war a wax te loolu dafa am solo parce que alquran ñu ñuy indil ay yoo xam ne yàlla seytaane dafa naan yàlla dinaa leen gàttandu sa ñi nga xam ne mooy nit ñi yàlla ne mu ne ko dinaa ko dinaa ànd ak ñoom ay doom yoo xam ne nit ñi dañ koy jur fekk ay doomu seytaane lañu jur seen ya bàyyi yi ñuy wax ne ñoo leen jur dañ ko bokk ak seytaane parce que boo dee sëy ak sa soxna te waxoo yooyu yow ak seytaane yéen ci bokk donc yéen a bokk doom bi mu nekk loo xamante ne ni lu kéemaane moo am na sax boo xam ne moo gën a gàtt rek comme maa ngi koy wax ci oco mu ne allahumma tazawajtuha wa bi amaanika axastuha euh, maa ngi lay yow suma borom ci sa téere bi muy alquran muy farata ci laa ko takke wa bi amaanatika axastuha ci sa protection laa ko allahuma jannibna cheytaana wa jannibi cheytaana mimma razaqtana allahuma jannibna gis nga loolu mooy bi mu mujjee wax ni allahuma jannibi chey jënn bi cheytaana euh, bi ma wax ni moom boobu rek formule boobu rek doy na pour yàlla musal la ci li nga xam ne moom mooy euh, musiba ngay sëy seytaane di sëy moom it euh, bu ko defee doom bu ci juddu mooy waral nga gis ñu nekk de vrai satan yoo xamante ne en chair et en os mais personnifié benn hadis boo xamante ne dañ ko jële ci imam Rida imam Rida moom ci ñu xam moom mooy jàngal euh, Maaruf Karixi Maaruf Karixi nekk nijaay ci Junayd Junayd képp kuy wax tasawuf muy Sénégal ak feneen ba ci Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani Cheikh Ahmad Tijaani ci moom nga jële te ñooñu ñëpp ci imam bi muy imam rida ci moom la ñu jële mooy euh, euh, alimu ali Muhammad maanaam borom xam-xamu waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne Euh, képp koo xamante ne bëgg na soxna takki soxna te mu bëgg mu am barke mu ne na ko dem labati bisu àjjana bisu àjjuma wa yowmul jumaati yowmu xitbati wa nikaax booy dem di uti maanaam di di di di dem bëgg a ñaanali ji ak bisu bi nee na àjjuma moom moo ci gën euh, maamam donc mu nekk zufri zufu ara isakum laylan watimu duhan mu ne bu ngeen di mu ngeen amee soxna seet di seetal mu ne na ngeen di seetal seen seet yi jigéen ñi maanaam guddi bu ngeen di dal ci ñoom di àgg ci ñoom na nekk guddi waaye bu ngeen yeewoo ci yoor yoor na ngeen rey gàtt bu ko defee ngeen teral nit ñi parce que lii di ko dem màkk lii di nga xamante ne ni moom mooy xarfal euh, tudd ak lii nga xamante ne ni moom mooy sëy takk kooku dafa nekk loo xam ne lislaam daf ko fonk trop pour que nit ñëpp yëg ko mu nekk exemple boo xam ne à suivre pour ñeneen fa yustahabu a taami fi xafli zufaaf ndaxte dañoo sop ñuy préparer lekk ci mariage loolu dafa nekk loo xam ne sunna la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko digle yukrahu ziwaaju wal fi l wa yukrahu fi maxaaqis shahri également euh, bugguñu mariage ñu koy célébrer fekk euh, euh, weer wi mi ngi nekk ci premier jour wala mi ngi nekk ci quatorzième jour parce que premier jour bu ñu ne suba la mooy le premier boo ci takkee nga seeg sa soxna kooku bu ci doom juddoo mën na nekk doom bu dof mooy waral ngay gis ñi nga xamante ne ni dañoo am problème boobu mooy juddu rek xaw am kii wala ñu dem ba ci kanam euh, dof dab bu ngeen xoolee le premier buñ ne weer wi teru na rek wala weer wi mi ngi ci quinzième rek da gis seen bopp yi dafay yëngatu donc loolu moom moo tax ñu di ko bañ donc nga xool li nga xam ne man ul arush fi usbuhi al awal min tanawulil albani wal xalli wala kasbara wa tufaax al xaamit li annaha in xaadat ala alxamli lam tadhar bi tamaam walkasbara tusiiru alxayd fi batniha wa tushayidu wa tushiidu alayha alwilaada wa tufaahu alxaamit yaqtawu xaytaha fa yusbiru daaun fa yusbiru fa yasiiru daan alayha wa tamnau fi hadihi alarbaa li an arruxuma taqma taaqim wa tabrut an alwalad bu fekkente ne ni am na ci benn xadis boo xamante ne ni imaam ali ibn abi talib moom la ko yonent yàlla muhammad sangu-sang yi e, wax xadis boo xam ne bu doy mu ne ko yazharu e, fi axiri zamani wa niswatun mutabarrijatun kaasifatun aariyaatun min addiini daaxilaatun fi lfitani maailaatun ila alshahawaati musricaatun ila allazaati mustaxillaatun lilmuharramaati fi jahannama xaalidaat mu ne ci hadis bi ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nee na ko dina feeñi mu mujjug jamono bu demee ba àdduna bëgg a tudd tukki nga xam ne saa mi ngi jege mu yomal xiyaam mu ne moom mooy période bi gën a bon ci yàlla sàkk mu ne ko ah lu tax mu ne ko parce que daf ci am niswatun mutabarrijatun ay jigéen yoo xam ne dañuy bugguñu toog seen kër maanaam bu ñuy génn ci seen kër yi dañuy toilettal pour mbedd mi waaye duñu toilettal boo leen fekkee ci kër yi dañuy mel ni comme ñoo xam ne dañu àndul ak seen sago waaye bu ñuy génn laaj kolongo gongowu cuuraay defar ba mu baax kom niñ koy waxe mu ne mu mutabarrijaatun nekk ñoo xam ne dañuy génn rek pour ndax gis bi Mama TV voyeurisme ostentation loolu nag suñu jamono ji war nañ cee bàyyi xel mu njëkk ci ñun ñii di wax ak suñuy waa kër parce que ay habitude la culturelle yoo xamante ne ni daf ñoo sori jàngale nu diine l'islam ñii ci ñun ñii la jiitu kaashifaatun ñoo xamante ne ni dañuy ubbi seen yaram waaw nu mu leen yàlla jure woon ñu sol ko maanaam seen robb yu gàtt yi seen mbubb yi daanaka sax duñu sol ay yére mu ne aariyaatun min a diin te duñu am benn diine waaw duñu am benn diine dépouillé de toute religiosité daaxilaatun fil lépp loo xam ne mën na yëngal jigéen euh, góor rek jigéen ñooñu ñu ngi ci sol yu gàtt sol yoo xamante ne seen yaram yëpp nekk ci biti ay tenues yu moulante yu indécente yoo xamante ne ni eh, excentrique ba léeg-léeg da ngay gis yaramam yëpp mu ne noonu la jigéen ñooñu di mel di dugal nit ñi ci fitna wa ma ilaatun ila shahawaati fépp fu ñu gis loo xam ne mën na nekk passion dugal nit rek ñu ñu wala góor walla sax góor ak góor wala jigéen jigéen rek ñu ngi foofu di ko xamb ba mu mat sëkk waaw musiatun ila lazati fu ñu déggee lu neex rek ñu dem foofu waaw duñ ci sax xaar donc gis ngeen ko yenn soirée yi yoo xamante ne ni euh, mi ngi ci àdduna bi mi fii ci Sénégal yoo xamante ne ay club fermé yoo xam ne exactement yi ñoo ci nekk parce que xam naa ne groupe bi nu mu tëddee moo tax yenn yi du ma mën a dugg damay gaara rek bu ko defee ñu jàll yonent yàlla mu ne mustaxillaatun lil muharramaati maanaam lépp lu araam ñoom dañ koy daganal maanaam muuru leen sangewu leen jigéen na mel nii na mel na waaye ñoom dañu del le contraire mu ne fii jahannama xaalidaat ñooñu àjjana la ñuy maanaam safara foofu la sax parce que boo gisee xadis bi gën a accent wu ci wàllu jigéen parce que jigéen mooy koo xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon parce que jigéen mooy nit jigéen mooy société jigéen mooy ki nga xamante ne mooy baaxal nit te bu nit kooku baaxee mooy baaxal li nga xamante ne ni moom mooy société fan yii nag bis yi mooy bis yi nga xamante ne ni képp koo xam ne bëgg na mu sëy soxnaam muy sëy teg soxnaam soxnaam ëmb ci faratal nañ ci guddi altine ak guddi euh, mardi maanaam altine lundi guddi lundi guddi mardi guddi jeudi bi nga xamante ne buñ demee ba nga xam ne su su su maanaam zawal jot na zawal mooy euh, waxuñu la après julli timis tisbaar mais avant julli tisbaar ci bisu alxames ak li nga xam ne mooy guddi àjjuma gis nga samedi say samedi dañu koy dañu koy tere ak sëy euh, mardi ci guddi maanaam yooyu soppuñu ko ci parce que bu ci doom juddoo mën na indi ay problème yu bari te yii day nekk ay doom yoo xam ne boo ko ci amee mën na nekk ay boroomi xam-xam ay nit ñu baax ak yu demee noonu moo tax lu mel ni lundi mardi ci guddi lundi ci guddi mardi ci guddi jeudi ci guddi ak bu ñu demee ba nga xam ne Euh, ci sa ci ci jeudi ba euh, maanaam dem na ba avant euh, ñuy julli tisbaar ak li nga xam ne mooy guddi àjjuma ku ci sëy da am doom yoo xam ne mën nañu nekk buur mën nañu ca mokkal alxuraan mën nañu nekk ay boromi xam-xam waaye guddi samedi mu naan samedi samedi jëm dimanche ak guddi mardi jëm mercredi ñaar yooyu dañ ko sib ci li nga xamante ne ni moom mooy sëy donc euh, ci ñaari coupe donc moo tax yonent yàlla sa seen prem di jàngale laa tubashir fi safinati wala mustaqbil al qibla wala mustadbiraha mu ne booy sëy bul ci biir bato xam nga nag léegi waxatuñu bato de yi mooy comme bato yu traditionnel yàgg yi wala mustaqbil booy sëy ak sa soxna wala sa borom kër bu leen jublu penku wala ngeen won ko ginnaaw donc loolu yëpp dafa nekk ay règle yoo xamante ne am solo mu ne yukrahu mubashir gis nga al mubashara dañuy tere sëy ci bis yoo xamante ne ni dafa am maanaam weer wi daf ko daf ko dafa làqu dañ téye weer wi wala dañu téye jant wi donc weer walla wala boobu jour boo xam ne dafa am yëngu-yëngu wala moo euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, kii venteux un jour venteux mooy nga xam ne ngelaw li dafa ëpp mu am tempet yooyu dañ ciy tere ku ci sëy ak soxnaam moo tax dañuy tey tere aussi euh, ku sëy soxnaam bu fajar fajar diggante fajar buy taxaw ba bu jant bi di di feeñ dañ ciy tere ku ci sëy ak soxnaam ak bu jant bi di wàcc ci ngoon gi ba nga xam ne lu rouge li mi ngi dem parce que gis ngeen ni yëpp c'est des yoo xam ne yu am solo yoo xam ne dañ koy war a bàyyi xel donc nga gis no lu am solo également dañuy sopp booy sëy ak sa soxna mu nekk euh, guddi aj guddi ramadaan maanaam li nga xamante ne moom mooy euh, buñ ne euh, tey mooy premier ci ramadaan ñuy dem deux nga sëy ci sa soxna muy deuxième jour bi kooku amul benn problème te soxla nañu aussi isa xamilta isa xamilatil maraj saxabul wudu qabla al mubashara maanaam dañuy sopp ci ki nga xamante ne ni euh, soxna si bu demee ba nga xam ne ëmb na képp koo xam ne yaa ngi dem ci sa soxna mu ëmb na nga jàpp bu set balaa ngaa dem ci moom ndax li muy conséquence nga jàng du'a bi allahumma ya farijal hammi euh, wa kashifal ghammi wa rahmanu dunya wal axira wa rahimahuma irham fulana ibintu fulan rahmatan tughniha biha an rahmati jami xalqik wa tufarrij biha kurbataha wa takshifa biha rammaha wa tuyassira wiladataha wa qadiya waqdi baynahum bilxaqi wa hum la yuzlamuna wa qila alhamdulillahi rabbil alamin kooku xam naa c'est comme c'est en arabe mooy yàlla yàlla nga maanaam gis nga am na ba tey boo xam ne danga koy gis ci ci sëy mais ñenn ñu bari dañ la naan non lii bidaa la lii la fekk ñoom ñoo xamul parce que ñoo dajul li nga xam ne moom la ñu ci jàngale muy lu authentique moo tax dañu ne yustahabu an yaquma zawju bi xami xafi zawja ida jalasat wa yaxsila rijlayha wa yaxsilu rijlayha wa yasubu almaa min baabi daari ila aqsa ma fi daar loolu yeneen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wax na ko ci ali mu ne ko bu fekkente ne ni sa doom am na par exemple jigéen ni euh, sëy si bu demee ba sëy si euh, maanaam euh, sëy si boobu mu dugg ci kër gi mu ne ki nga xam ne moom lay moom lay sëyal xam nga fii dañuy jël togg laax togg yooyu ay aada la waaye yonent bi nee bii sunna d'accord loolu kenn du ko dàq parce que aada bu rafet mooy da góor gi dafa war a jël maanaam dàll ku jigéen ci moom moo ko koy summil waaw ku góor ki mooy summil dàll seetam bu dugg see ci kër gi fekk seet bi dafay toog bu ko defee mu raxasal ko tànkam yi bu ko saxalee tànkam yi ba pare mu jël ndox fe mu sotti ko ci buntu kër gi ba fi nga xam ne kër gi fu mu mën a tooyal rek mu tooyal ko ci ndox boobu loolu la yeneen ci yàlla Muhammad jàngal imaam Ali ibn Abi te mu nekk lu leer nañ te fi boo ko fi defee la plupart ñu ne non loolu bidaa la fekk du bidaa ñoom ñoo comprendre moo tax nga gis musulman yi tey dañoo am confusion shérif day ñoo wax lii saalif ñoo wax lële oustaz Pam moo di ñoo wax lële bu ko defee mu indi confusion ci ci ci bopp nit ñi te loolu dafa nekk loo xam ne du dimbali jullit ñi loolu dama jël exemple rek en guise exemple pour wax leen li ngeen di gis ci télévision yi di ko gis ci rajo yi kii daganal lii kii tere lii kee wax ne dañ koo sip alors ci benn masala ci benn point dafa nekk loo xamante ne du dimbali ki nga xam ne dafa bëgg a xam diineem ba tey ci règle yi ak ci li nga xamante ne ni moom mooy principe yi adamu mubasharati zawj bi man arada an taxmila zawjatahu képp koo xam ne dafa bëgg soxnaam ëmb euh, euh, mu sëyeeg moom mu ëmb euh, mooy na moytu awalu chahril hijri maanaam mooy li ma leen doon wax rek premier jour ci weeru mois lunaire képp koo xam ne soxla na jabaram ëmb ci sëy ak moom na moytu premier jour ci mois lunaire mooy maanaam weeru wolof wa wasatahu ak ci digg bi mooy quatorze quinze ak ci vingt neuf trente ak lépp loo xam ne moo nekk de zuhr après tisbaar après tisbaar boo ci sëyee boo moytul doo am maanaam doo ci am doom wa an laa yaksura al kalaama asnaa al mubashara bañ a bari wax buy sëy ak li nga xam ne ki nga xam ne moom mooy soxnaam muy ku góor ki muy ku jigéen ki parce que bu ci doom juddoo mooy waral doom juddu nekk ku lu du mën a wax parce que loolu moom moo koy indi wala yubashiruha bi shahwati imraatin uxra bu mu sëyeg maanaam soxnaam fekk xelam mi ngi ci beneen jigéen parce que loolu bu ci doom juddoo mooy waral liñ tudde xunsa mooy hermaphrodite maanaam nga judd du nekk nguunu ngaana loolu moom moo koy indi gis nga yooyu ay secret yoo xam ne yu ama am solo waaye ko également min qiyaamin wala nga muy taxaw bu leen di taxaw di sëy parce que bu ci doom juddoo day sawlal rek loolu mooy indi su day sawlal wala li laylatul fitri wala bu ñu nee suba moom mooy weeru euh, julli julli julli koor julli julli koor euh, mu ngeen ci guddi gi ñu ne comme suba la nga sëy ci loolu mooy indi xale bi di am juróom benneelu baaroom baaroom yu ndaw yooyu ci ci loxo bi walla ci tànk bi wala li lay moo eh, eh, ma wala li mooy weeru koor bu ñu ne suba la ñuy julli weeru koor nga sëy ci kooku day tax doom bi bu juddoo day nekk ku sanguinaire waaw du bëgg du bëgg jàmm fu ay nekk rek moom day taxaw pour pour yëngal donc nga gis moo tax ñuy tere loolu wala li laylatul adha walla bu ñu ne suba la tabaski nga sëy ci ak sa soxna kooku mooy indi juróom-benneelu duwaay mooy ji nga xam ne bu ñu juddoo dañuy am juróom-benni euh, euh, maanaam euh, walaa tax taxta shajaratin musmira wala mu nekk ci suufu maanaam garab boo xamante ne ni dafa maanaam meññeent la parce que xam ngeen malaaka yi dañuy nekk foofu di sàbbaal borom bi wala fi wajhi shamsi wala fekk digg njooloor nga ciy sëy sa soxna chiaawuha fekk mu ngi nekk au zénith comme au zénith lu mel ni midi wala yu demee noonu wala baynal azani wal iqama wala li nga xamante ne ni moom mooy diggante bu ñuy nodd ak bi ñuy liqaam nga ciy sëy sa soxna wala fi awali saati min al leyli wala ci commencement guddi gi rek commencement guddi gi neuf heures rek nga sëy ci sa soxna dañuy tere loolu parce que xale yi lañuy bañ ñu ñu c'est d'ailleurs psychologie euh, études sérieuse def nañ ko ci ñi nga xam ne loolu mën na ko indi ci yàq xale yi parce que nelawuñu wala xale yu ndaw ndaw yi un an un souvent dañuy répété yu bëri wala li laylati nisfi min chaaban wala li ñu naan mooy chaaban euh, moom mooy euh, deux mois avant koor gi bu demee ba am fukki fan ak juróom kooku dañ ko ciy tere wala ci fin bi wala ci jeexital bu fa defee ñaari fan dañ ko ciy tere wala ngay sëy sa soxna fekk fi nga koy sëyee amul toiture maanaam asamaan bi rek moo leen wër kooku aussi nekkul lu am solo wala nga ne suba da ngay dem euh, voyage nga sëy ko maa ngi dem Saint-Louis maa ngi dem Dakar maa ngi dem kii maanaam voyage bu xaw a long wala relativement euh, long nga sëy ci sa soxna loolu aussi mën na indi ay mbir yoo xamante ne ni yu ama yu doy waar ci ci couple